Sadio Mané muy joué suba finalu Ligue waaye bonne chance parce que euh, na xam ni Sénégal yëpp lay représenté te ñun ñëpp bëgg nañ mu gagnon te euh, incha allah am nañ ci yaakaar quoi. xel dal na waaw kontaan nañ trop suñu supporters yi di ñaan yàlla supporters yi gën ñu jàppale incha allah lépp dina baax. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.